askan a fa ne fu askan nekk nag lépp lu ñuy wax mu jëm ci luy yëkkati askan wi soxal na ko te fal askan wi dafa melul comme parti politique tey jii su fekkoon ne parti politique ba ma jiite woon moom laa yor duma ko fi tudd mais dafa fekk buñ ne dañuy fal askan wi maanaam askan wi ci pàcc yi mu doon yépp dañuy fexe xam ay yitteem faale ko ànd ak moom ci toppatoo yitte yooyu loolu mooy fal ko te li nu bëgg mooy fal askan wi ba faw askan woowu nag askan woowu nag euh, dafa bëri te wuute c'est ce qu'on appelle la diversité j'ai eu l'occasion je pense que Théo était là fële ci cathédrale bi j'ai eu l'occasion de souligner l'importance de cette diversité je pense que jataayu tey bi loolu la indiwaat keroog wax naa leen ni leen le citoyen Talla Sylla est un musulman et un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul dama leen caa tegal nag nii le maire de la ville de Thiès est un serviteur de Thiès un serviteur de tous les wa seetuma ban waaso lañu bokk seetuma ban diine lañ bokk seetuma ban tarixe lañ bokk seetuma lu ñuy làkk seetuma nu nu mel li ma seet mooy waa Thiès lañu bu ñu nekkee waa Thiès rek bokk nañ ci ñi nekk sama njaatige bokk nañ ci ñi nga xam ne man seen surga laa te pour ma mën a nekk vraiment seen surga dafa fekk ma war a xam seen yitte pour man cee taxaw kon ñëw bi lu jaadu la li ñu mënoon wax sax mooy xëy na yeex na ndax euh, dañu boole ci yi ñu gën a ñor te bis bi nga xamante ne ñi ngi may installé ma ànd ko ak waa conseil de ville bi yëpp ànd ko ak ñi ma nekkandool ci bureau bi yëpp dont madame le maire Maïmouna Dieng dama wax ne suñu credo mooy éthique transparence efficacité ouverture kon ci biir loolu mënoo ko tudd te doo tudd justice te justice dafa waral bu fekkee da nga fekk nit ci këram foo tool di ko jalax di ko randuloo di ko jalax di ko jalax ba mu dem ba nekk ci puxuus bu xat lool nga bëgg ko wax existé woo non loolu injustice la la première visite que j'ai rendue à l'évêque monseigneur André Gueye que je salue ba pare non seulement di ko ñaanal waaye di sàkku ci moom ay ñaan ku baax la chance la pour Thiès chance la pour jàngu bi ba ma ko njëkkee seeti dama ànd ak kenn ka ma àndal dafa nekk seen mbokk di à fois séeréer et chrétienne kooka xamul sax ba may ànd ak moom lu tax ma yóbbu ko bi ma ñëwee ma ne ko évêque dama yëg injustice yi am ci dëkk bi te jëm ci communauté séeréer mu tàmbali woon bu yàgg te bokk na ci li ma def sama mission mooy fexe dakkal injustice yooyu ma ne ko kii maa ngi ko indi ba fii te xamul lu tax ma indi ko waaye dama ko indi pour wax ci sa kanam ne dama ko fas yéene dénk mu jiite la commission domaniale bi toppatoo mbiru suuf dama am yaakaar ne xanaa du bokk ci ñuy luubal suufu ay mbokkam kooku mooy kan kooku mooy Christine Leya Faye nit nag ci àdduna day am yaakaar yaakaar ma yóbbu ci évêque ma wax ko ne ko kii ci sa njaboot la bokk ci wàllu diine bokk na ci it ci wàllu waaso ma am yaakaar ne bu ma ko jiitalee ci liggéey bi liggéey bi en tout cas xawma kan lañ ciy tooñ waaye xanaa dootul dooñ mbokk chrétien yi ak mbokk séeréer yi loolu ah kon bu ma leen ko waxee ngeen war a xam ne bi ngeen njëkk a wax ci wàllu doléance loolu lu néew la par rapport ak li ngeen waroon a laaj euh, xam nga tey quartier Wango maanaam nit da koo mënta jëlee ci cees li nu war nag mooy dans en premier temps comme ni ngeen ko defee comme code général des collectivités locales dafa am nu mu tëddee ñu interpeller le maire de la commune Thiès Ouest interpeller ngeen ko sax mais daanu ko interpeller ngir loolu di injustice mu jaare ci moom mu rétablir ko ñu ci am yaakaar nag c'est un appel que nous lance nous lui su ko rétablirul du tee dana am parce que parce que mbir mi fi mu tollu mbir mi fi mu tollu mooy ku war a def lu war a jëm ci askar wi dinga ko def wala di nga fi jóge loolu loolu amul werante mais kenn ku nekk dañ koy nangul cëram interpeller ko pour mu doxal cëram su doxalee cëram ñu gërëm ko ne ko ah def nga sa liggéey ku ci war a def sa cër te ñu ne la danañ la defoo ko danañ la rappeler à l'ordre soo ko deful ñu ànd ak askan wi teggi pexe ba nga jóg fi voilà noonu muy amee ci quartier bi noonu lay amee ci wàllu suuf yi moo xam barab bi ngeen tudd moo xam yeneen i barab ndax fii ci biir cees muy Capong Poñeen Jasab ak mu coonaax ak gox yu bëri yoo xam ne ba ci Balabé 2 ak feneen ak feneen ba ci booru champ de ba ci fële ñu doon tuddee forêt classée bi te nga xam de fait nekkatul une forêt classée lu ci bëri xam nañ ko bari na lu am ci biir Thiès ci ay poche ci wàllu suuf yoo xam ne dafa poser problème loolu moo tax yàggul dara ma wax ne dinañu def audite ci wàllu foncier bi bu ko defee ah ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee Thiès te moom ko ñu fexe ba kenn du leen léser ñu fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo war a toppatoo loolu pour képp ku ñu léser woon démb ak bërki démb ñu delloo la la nga moom ñi nga xam ne nag ñoo dëkk ñeneen ñoo dëkk wàll si ci biir Thiès wala ñoo xamante ne ah, dañuy liggéeyal biir Thiès te am loo xam ne soxla nañ ko ci suuf si bu boobaa ñu jaarale ko ci yoon nit da ngay waxtaan ak nit waaye nag nit ñi dañu am fulla ndax nit bu la ñëwee fekk sa kër ne la tey ji sàcc la jaral na ma lu ne mais asama ak yow mi moom alal ji loolu rek la donc en attendant en attendant que ñi nga xam ne ñoom la war tey ci wàllu yoon ñu reconnaître délégué de quartier bi ba di ko jox lim maanaam ñun ville dinañ ko recruter comme volontaire di ko fay loo xam ne moom lañu ñuy fay nanu ñaan yàlla nanu ñaan yàlla sama rak mi nga xam ne mooy maire commune ouest mu jël dossier bi def ci li ciy wàllam yéen tam ngeen gere ko ak dal suñu demee ba jàpp ne yegg nañ ci cëppaandaw ja bu boobaa lu ngeen nee dinañ ci nekk jigéen bu soobee yàlla bu ci yàlla àndee lu jëm ci wàllu làmp yi am na loo xam ne dafa war communes yi e facture am na lu ñu cay euh, te jëlee ah, loolu ñu cay jëlee dañ koy dajale delloo ko communes yi sous forme de ristourne ren rek 227 millions séddale nañ ko mu jóge ci Sénélec ñu séddale ko ñetti euh, communes yi loolu lale ca war mooy fexe làmp yi nekk ci mbedd yi bu ci amee loo xamante ni daf dañ ko war a def entretien bi ñu mën ko cee def ñun li ñu war en tant que ville c'est l'extension du réseau d'éclairage public muy zone yi nga xam ne mosu fa am ñu war ko fa def loolu mooy suñu compétence waaye nag du ñu génne suñu loxo ci benn côté ci biir Thiès maanaam bu fekkee ne dafa am foo xam ne fay am na fa ñu yëg ko dinañu seet yan pexe la ñuy tëral directeur bi nga xam ne moom moo yore euh, voir yi ak travaux yi mi ngi nii di Ameth Mbaye moom comme dégg na loolu la cay matukaayam dina ko jël ak ñam ko war a jëlandool pour nu ñu leen ci mën a jàppale ñu jàppale leen ci loolu mais maa ngi woo aussi sama frère di le ministre de l'énergie di Thierno Alassane Sall euh, ñoom comme am nañu pexe yu ñu mën a dimbalee nit ñi ci wàllu solaire bi ak ci yeneen wàll maa ngi koy ñaan. que particulièrement euh, lu jëm ci gox bi ñu nekk muy discrimination positive même ñu def ko pour jàppale waa Wango ak ñëpp ñi dëkk ci mbedd bu ko defee bu ko defee dina am ñoo xam ne dinañ ah gaañ kat dañ doon defal wàngo far defalaa lañu bu ko defee ñu sant leen ci gërëm leen ci euh, am na yoo xam ne madame le maire tudd na leen donc du soxla ma di ci jaaraat dama bëgg ngeen xam ne euh, waa Thiès ak fu ñu manti nekk ak nu ñu fa manti nekkee ñu ak ñoom ñoo far euh, du nu am lu nu metti lu dul jamono bu ñu toogee ci sunuy biro ay nit ñëw wax ñu farata dëgg loo xam ne moo leen yitteel moo leen yëkkati ba pare nga toog ci waxtu woowu mënoo ci lu bari waxtu woow lañuy am lu ñu naqari ñun li ñuy xëy di dox suba ngoon guddi du leneen lu dul jéem a xam lan mooy yitte nit ñi tey jii fii la ñu nekk démb ña nga woon feneen beneen yoon ñi ngi woon ci yeneen bërëb fexe ba lépp lu ñu man ci réparer ay injustice ñu def ko ah le conseiller kii est jailliste te wax léegi effectivement li mu wax dafa jaadu maanaam ñun ñëpp dañoo waroon nekk jailliste ngir lan ngir sacrifice yi mu def pour ñun le président Mamadou Dia Mamadou président Mamadou Dia mais réparer injustice moo tax ñu defaral ko place bu mag bi ndax loolu waa Xombol la njëkkoon war loolu état Sénégal la njëkko war loolu ñeneen war na leen ci biir Sénégal ndax dañ ne bu lekkee alom na ko gërëme coy Mamadou jaa le président Mamadou Dia a été combatu par ñi nga xam ne ñoo doon njeexitalu tubaab yi fii les gens qui voulaient poursuivre une politique néocoloniale les gens qui ne voulaient pas que le Sénégal décole les gens qui ne voulaient pas d'un Sénégal véritablement indépendant ñoom ñoo jóg pour jaxase ko ak kilifa yi nekkoon ci biir réew mi dem wax leen ne leen kii mi ngi waaj lii mi ngi waaj le mi ngi waaj lële fekk booba waajul woon lenn lu dul nu muy fexe ba Sénégal moom boppam et moom il a il s'est il a été en prison at yi mu fa nekk yépp ba dem ba perdre la vue pratiquement te mënoon doxe neneen te mu leer leen ne ba mu nekkee foofu am na loo xam ne su ko nangu woon dina fa teel a génn kon bokk na ci lu mel noonu mais bu ma xalaatee Mamadou Dia ak sacrifice boobu mu def pour ñun te bénéficier wu ci personnellement jamais nga xamante ni ci weeru novembre bi ñu nekk daaw le 15 novembre lañ doon inauguré place bi soxnaam ñëw tey jii soxnaam soosu génn na àdduna waaye bu demee fekki ko fekki fekki na ko avant muy dem fekk nañu sargal Mamadou Dia te Cees a ko def lu jiitu woon loolu nag dangeen am kilifa bu nu bokk ak yéen bi ngeen di ñaan tudd ngeen mari man doomu mari la ndax sama yaay moom lañ ko tuddee Euh, fu ñu tuddee Marie daf may concerné waaw ndax sama sama sama sama yaay woy juróom bu góor ab sëriñ la sëriñ Ibrahima sàmb doon ànd ak sëriñ Ablaye Yaqin mais moom bi mu amee benn doom la benn boo xam ne moom ci boppam gisu ko lu mat ñaari at waaye ba mu amee doom tuddewu ko ndeyam tuddewu ko bàjjan tuddewu ko tànt tuddewu ko xaritam tuddewu ko kenn ku ko jege mari la ko tudde kon dafay jaadu fu ma gisee soxna Mariama mu am ñoo xamante ne dañ ko gëm di ko wuyoo fu ma leen gisee dama leen di jox ciir ba pare nag wëlbatiku doomu mari boobu wone loo xam ne dafa bokk ak li ma gëm mooy di sacrifier wu pour ki nekk sa ginnaaw koo xamante ni yonent yàlla Insa di Jésus nga xam ne dafa jël nangu ñu yen ko croix bi ñu yeew ko ci ñu daaj ko ci mu nangoo joxe bakkanam ngir lan ngir ñi topp ci ginnaawam ñoom ñépp seen péché ñu dindi ko mais def mais moom def li mu war a def moo tax ñu koy fàttaliku ba tey waa mais ki doon daaj kenn moo xam turam ñi ko ñi waroon ñi ko waroon ñi toppoon ci procession bi di yuuxu ak di wax lu ñu war ta wax kan moo leen fàttaliku ña doon àtte ku leen fàttaliku moom pourtant 33 ans la fi def te ba léegi ñu ngi koy fàttaliku. Attaché à la croix pour moi, il a pris moom péché et il m'a délivré. il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux. Méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées, il me dit, vois combien je t'aime. Sa mission accomplie sur la terre, mon sauveur remonta au ciel. Mais bientôt il va reparaître, mon bonheur sera éternel. li tax ma di ko wax dafa fekk kër jigéen ji am pendant des années. kenn mënu faa dugg te mu nekkoon nag foo xamante ne fa la jigéeni Thiès yëpp daan daje dafa mën a seeni activité génératrice de revenu on est resté plus de huit ans yoo xamante ne tant mënatu faa tegu le maire Talla Sylla la réhabilité ko ba macha allah bu ngeen fa demee di ngeen xam ni fii këru jigéen ñi la yemul ci loolu lu mu génne rek spécifiquement génn na ci loo xamante ne cërub jigéen ñi la ba ci sante day def ay journée médical waaye dafa jël loo xamante ne dafa ne sama jigéen ñi sama euh, euh, tante yi sama ñi nga xamante ne ñoo ŋànk développement dama bëgg seen ku wér gu yaram mat sëkk mu dem nañu li gën a metti mooy ndeeteel jigéen ci biir kër li ñu wax perdre la vie en donnant la vie mu ne kon damay jël sama xaalis lu ak 5 millions joxe ko pour que jigéen ñi ñu leen di mën a defal ay consultation gratuite ci col de l'utérus ak euh, cancer du sein kon defe naa ne loolu ñëpp a koy wër ci jigéen ñi kon suñu ko xëccee ba mu si fii te defal ne da koy décentraliser nag kon yéen waa wàngo pare leen accueillir journée boobu fii ci biir Wango Virginie du yàgg nag nan ma ne balaa yàgg ndax man xam naa ne santé la ñor te santé nag laa sante avant tout bërki démb dafa ne foyer de la femme duma ko defar noonu rek bàyyi ko ndax nit ki mu defaree dara dafa am lu mu ciy dugal li ma leen mën a wax damay junj rek bala ñoo cat a dugg lu toll ak juróom-ñaari projet yoo xamante ne projet bu ci nekk jigéen ñi soxla nañ ko fas yéene nañu balaa yàgg def ko mu dugg ci biir foyer de la femme mais nag nee na ñu inauguré leen ko ba pare ba ñu xam ne kër gi seenub kër la ñu dog cee dugal yooyu yëpp kon incha allah na xam ne bu fet partie ci loolu beneen bi ci des mooy da ngeen ne xale yi dañ leen a fàtte ki yor jeunesse baa ngi nii ni jigéen ñu amee ay projet ni la doxee ci ay projet xale te incha allah bu yàggee dégg ngeen combat muy wax naan moom day combattre les enfants dans la loolu ñun ñëpp la metti ndax jigéen bu gisee ay doomam di taxawaale di fanaan àll di fanaan biti du ñu set di eere comme maara day taale ay ay ay ay mala jigéen bi na bu ci sa bët tegoo am nga loolu naqari soo ko mënee faj bi soo ko mënta faj moom looloo ko jëkk a naqari ba ku nekk xam na ne taalibey Cees ay waayam lañu biir biroom la ñuy nekk biir réunion la ñuy nekk gan gu fi ñëw mu solal leen ay t ñu gunge ko kon kooku gone yit ñor na ko te ku gone ñor rek jigéen ñor na la xam naa ne du duma ma guddal sax ndax chapelet de doléance yi ngeen fi def incha allah dina ci andi tontu dina ci andi tontu yu wér dina ci andi tontu yoo xamante ne incha dafa fas yéene ànd ak yéen nag dox dox bi mooy du ñëw di digga de day ñëw ànd ak yéen dox dox bi kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax jigéen ñi à très incha allah